الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سوي الرضوان والتمكين السلام عليكم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi nu santee yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant ko tedd gi ñu ngi am mbégte bu baax ak kontaante ak tawféexi xol ak mbégtem xol bu sedd ci yàlla sunu borom subhaanahu wa def gi mu def woon ko daaw mu defal nu tawféex yu ñu teewaat ko ren te kenn manqué ko ñu ngi koy sant sunu boroom subhaanahu wa taala ci tawféex jëm nu defal ba boole nu ci bani aadama te lu bind lu nekk doomu moo ci gën a moo ci gën a tedd di sant sunu boroom subhaanahu wa taala ci boole gim nu boole ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bilmaarufi wa tanhawna anil munkar di ko sant bim nu boolee ci ñu bokk ci njabootug Sëriñ Tuubaa ndax baatu ba man bi biyan najaa rekk doy na sëkk tawféexi aj sa jëmm ci sëñ Tuubaa ñu ngi sant yàlla bi nu fekkewaatee bis bu tedd bii nga xam ni ñaari mbir dañ cee daje al isra ak wal mi'raj muy riñaanug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ak yéegam di tukki bu tedd bi tukki bi nga xam ni mooy tukki bi gën a riis ci tukki yi tukki boo fiy dégg rekk tukki bi sallallahu alayhi wa sallam tukki woon dajeeg boroomam moo ko gën a màgg damay riñaan gi ñun ñi nga xam ne ñoom la sëriñ ñun la sëriñ Tuubaa njaboote ñu am tawféex yi am ci Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ni ku tedd ki mboolem lu banqaasoo ci moom tan di ko tudde ay leeram amul benn leer gu ca moy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñim am ñépp te kenn ku ci nekk dib xutbu kenn ku ci nekk di mu jaddit ñoom ñépp njabootam gi ba ci cheikh Mouhamadul Mourtala min wax ci saayir ni mooy caatam sax ñoom ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la leen la leen tudde waaye cheikh Mouhamadul Fadal mbooleem ñi mu bokkal sëriñ tubaa nungu nan ni dafa am taxsiis li ñuy tudde ak jagleel jagleel gi nag ba ci jiitu mooy li sëriñ Tuubaa woon Cheikh Mouhamadul Fadal fu mu feeñe woon furul ci sama jëmm dana nëbb wàlliwu yépp waaye bi mu feeñee ci jëmmi tedd ki dafa nëbbutu ci suufam nu ngoo doon ab taalibeem moo tax sëriñ Tuubaa fu mu feeñoon rek furul ci man dana nëbb wàlliwu yépp ngir ay mayam waaye bi mu feeñee ci ki nga xam ni kenn xamul lu mu doon mooy Seexul Xadiim daf ko ni jaay naa la lépp la ma doon ñu xam ñu xamul daxañ taxañ naa lépp def ko ci suufi tànk yi la ma koy jënd nag mooy nga nungul ma ni sab taalibe kon koo xam ni yàlla waajal na ko ay mayam boroom xam-xam yépp nangu ni ku fees la digganteem ak boroomam day na sëkk yaa faadilan faddalakul xallaaqu yaa man bihi faratani imlaaqu ci ay tiraanga ndax muhammadul faadal gin ko tuddee muy alfadaayil di boroomi ngëneel daa feeñ ci aw turam kooku bu nu ko sunu boroom subhaanahu wa taala joxee ci weeru rajab kon day mel ni rajab moom fees na dell ci ñun ak ay may guddi gi nag dañ ni ko aye wal sa moome ku aye wal moome bu nu ko waxee rek mooy sëriñ Fàllu moom moom guddi gi te ni nu lijjantee ba satellite bi di ñu jox ñuy man di jokkoo ci sunu biir te jokkoo gi ñuy jokkoo ci sunu biir satellite bi moo nu ciy dimbali tey jii ki nga xam ni mooy satalik bi nga xam ni moo fa yéene tasaare ay ngëneel ci ruux yi murit yi mi ngi tudd Cheikh Mouhamadul Fadal sëñ Fàllu la tax murit bu nekk jël ko fat ko ci sa xol def ko sa soppe donte am na foo wéeru loola suñ boroom moo ko ko jagleel te ñépp nangu nañ ko ay tawfee xam nag la tax mu neex a waxtaane mooy daal nëbbutuwut wàllu yu bari nëbbu nañ sëñ Mahamadul Fadal ñëw ni fàng ci biti moom tàllal nañ ñépp loxo wan leen fi mu toll ci boromam nëbbul ay mayam moom sëñ Fallou kon bu ngeen dajewoon ci jataay bii rekk daldi ni dañuy dundal ak feeñam képp yam ca te am yéene ji yéene ji ngeen am ci feeñal ay ngëneelam ci la leen yàlla di yëkkatee ba faw te du ngeen wàcc ndax waa ju baax lu ko waay lebal yàlla fay la ko te loolu daa mat di bàyyi xel danaay dégg ñi nga xam ne sax ñoo koy faral di bàkk naan ko sharifun bun sharifun tuuma jubluwu la wax ju gàtt la nag waaye daa am lu mu dañoo boole ñaari sharifun sharifun bun sharifun te sarifun gu njëkk gi li muy tekki bokkut ak sarifun bu mujj jigee li muy tekki sarifun gu njëkk gi teddaange gi mu tedd ngir li mu bàyyee ko ci Sëñ Tuubaa moo tax muy wax waaye sarifun gu mujj jigee da ko bëgg a gaaral ni ko rasulullahi mooy sa ndax ku ko dàq mu dellu ci soxna jaara te ku dàq soxna jaara mu dellu ci Seydina Aliyu kon loolu sabab la ci li tax ñu xam ni tedd am na ñaari cëri tiraanga tiraanga yi ku yàlla sàkk ci coobareem bàyyi ko mu koy jaamu ci coobareem te mooy Sëñ Tuubaa ay téeméeri téeméeri at te xamut li mu doon ba xëy mu neex sunu borom mu jaarale ko ci kenn ci soxna yu yegg yi ca sunu borom muy jaariyatullah loola ku am cër ku ku bokk ca moom ku ne kooku sarif nga ndax sarif baatub sarif mooy nit ku nit ku tedd nit ku yiw nit ku baax nit ku mucc ci ay ayib ci ñaari côté sëñ Fàllu nag guddi kii ñu koy màggale bu kenn sikki sàkka ni kenn ku ci nekk dina la dolli dina dina la tibbal tëbbal ay xewalam ba nga yëg ni màggal naa Cheikh Mouhamadul Fadal ndax moom noonu la ko yàlla bindee noonu la yàlla binde ay mbiram du yàlla waaye foo ko tuddee mu teew moom foo ko tudd rekk mu teew ci sa kanam teewaayub xol teewaayub ruuxu nga yëg ni maa ngi dund ku baax ndax sama borom moo ko ko jagleel inna allaha yaxtasu nag bi rahmatihi man sa yàlla mooy tibb ci yërmandeem di jël ak mayam di ko teg ci loxob jaam bu ko soob jël na ay may yu xóot yu kawe teg ko ci loxoom doomi ku naan doomi Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Fadal muy def di dindi di ci déggoo ak borom te loolu lu mat di bàyyi xel ndax Sëñ Fallou bu waxul woon Sëñ Touba ni ko li ma yor dama koy dugal ci sa ron tànk yi nga nungul mag taali bi rek ngir ma mën a doxal loolu mooy tawféex mu leen na ko rek ngir jaar kim jaar ci moom kon màggug Sëñ Fàllu doy na sëkk mu ni yonent bi saa sallam dañu lay ma ni jëpp te weer wi dafa bokk ci ashurul xurum mooy weer yi gën a tedd ci weer yi bu ci Seex Muhammadul Faadal ñëwee tekki na ni wuyu na aw turam ndax mooy boroom gënee lii te loolu lu mat di bàyyi xel la sëñ Fallou nag dafa am lu jafe ndax dafa làq ngërëmal sëriñ tubaa ci jëmmam ba noppi làq ngërëmal boromam ba noppi nekk borom xam-xam yàlla dimbil na ko ci ñetti mbir borom xam-xam la bu fees del lu nit di xam rek xam na ko borom xam-xamu bu ànd ak xikma moom Cheikh Mamadou Fall am na xam-xam am na xikma làq na ngërëmal sëriñ Touba. ba noppi daj na boroomam daj na boroomam bàyyil xel ma la daj na boroomam làq na ngërëmal boroom Tuubaa ba noppi am na xam-xam am na xikma moo tax mu dugg ci jamono moo tax fépp la samp ay chaise moo xam murit nga wala tiijaan nga wala xaadir nga wala lay nga foo ne koŋ-koŋ fàllu nil bismillah loolu kenn amul ko dul tariqatul muridiyya sëriñ saaliwu daana ko wax ni sëriñ saaliwu dafa mos wax si Abdou Lahad Mbàkke ni ko ay waaye waxe leen fexe leen sëriñ Fallu di wax rek ndax wax ji bari na te lu wax sa def ko waaw loolu sëriñ saaliwu ko seer la woon ndax xorom si nekkoon ci moom moom Cheikh Mamadou Fadal ak ni ko yàlla bindiwa ci xeeti kàddu wax yi te lu mu wax yàlla dogal ko moo tax ku dëgg sa yitte def affaire ak moom boo jógee mu dajee yow defal la affaire te kenn du ci man loolu moom amul sax ma dem tey yàllaa ko ko defal te ñëpp nangu nañ ko ku dagg sa yitte ñëw ci bésam bii def affaire ak moom booy génni dajeeg moom mu lay defal affaire loolu bu la kenn tane loolu moom kun ko sax xam ko ku toll ni Sëñ Fàllu nag ku ko màggal def la la war noppi gisoo ci sa bopp ak yokkute nanga dugg ci ruq nga jooy ba jooy deret lu tax parce que xam nga lu muy tekk yàlla reconnaître say jëf bul xalaat leneen neel man ndekete dañ dañ maa delloo samay jëf léegi lan laa def ban delloo ma samay jëf looloo jar a seet waaye ku toll ni Cheikh Mouhamadou Fadal du ko waay jëf la mu delloo la ko loolu daa mat a bàyyi xel kon bisam bii moom laa ne moom lay ubbee ndax wax ci waaju baax daa jafe ndax dan ni man kaddaba alayya mutaammidan falyatabawa maqaadahu ala naar ku te saa daf ni waxal nitu yàlla lu méngoowut ak la ca moom walla lum wax képp ku ko def ëllëg dana la daajal bang ca digg sawara ni la delluwaat waaye sëñ Fallou ñépp nangu nan li mooy ngëneelal yoonu murit mooy tawféex yoonu murit te mooy jagleeg Sëñ Tuubaa loolu yàlla dogal na ko jëmmam ca moo tax la ñuy ñaan mooy moom borom leer gu fatt googu moom borom leer gu fatt googu moom borom leer gi jamoon fii ci tubaa jam ca Mbàkke nga xam ne diggante ak Sëriñ Touba waxam waaw rek la santoon waaw rek la santoon sëñ Fallou bokk na ci li taxoon bariwul woon ay tànk njaareem mooy bëgg gi tubaab Tuubaa bëggoon ku nekk tubaa ndax sëñ bi suuf si da ko mos sayemaleeg dara boobu musaana jóge tubaa ñëw fekk ko njaareem buy waxtaan ak ñoom dangay xam ne kii ku bëgg Touba la bëgg gi sëñ Touba bëggoon Touba moo tax lim fi def mook Cheikh Mahamadou mook Cheikh Modou Moustapha ñu am taxawaay yu toll noonu kon lañuy ñaan sunu borom subhanahu wa taala ci guddi gu tedd gii di cërub Cheikh Mouhamadul Fadal yàlla na wisaara ak leeram ci képp ku fi ne ba nga yóbbaale ay tawfeexam waxtaan wi nag dañ ko gën a yaatal ci kanam waaye comme presse bi dañoo ñëw macha allah ñoom ñëpp ngir couvrir jataay bi ay chaînes yu wuute télé yépp nekk fi daanaka te lañ gën a yittewoo mooy ñu dégg sama kàddu ba message bu may jàllale pour ñu mën koo jël ndax dañoo bëgg daal di dem loolu rek moo indi mooy ubbi jataay di barkeeloo ci Cheikh Mouhamadul faadal pour ngeen xam dimension ni jagleeg yàlla la gum jaar la ci Sëñ Tuubaa bu ngeen ko xamee seen xol rek bu ngeen jigéen yu bare tawfeex jëpp la ca des nag nga xëy ni moom laay tëje ci guddi gi muy beneen cër bi mooy tukki bi tukki bi nag daaw dama leen a waxoon yoon wi leeraloon naa leen yoon wi kon duma ma jaaraat ca yoon wax mooy voyage bi départ gi ba sidratul muntaha al isra wal miraaj ba nim demee Jérusalem ba julli gëm jiite woon yonante ya ak nam leen jiitee ba na mu yéegee ba na mu dajee ak boromam leeroon la naa leen ko fii daaw kon loolu du ma ci jaaraat kon li ma war a jaaraat mooy lan mooy ba mu tukkee sërëcc ba mu indi woon mooy lan sërëcc ba nag laa jotu woon a leeral sërëcc ba am solo la ndax ku tedd gi nekk na fi lenn képp la ko yàlla jox ci tukkeem boobee mooy asalaatu mooy julli julli moomu danaa leen ci leeral mooy sërëcc bi ndax Seydina Jibril dem na ba mënutul yegg mu ne ko fii laa mën a yem yàlla ne ko kaay ñu wéet ndax li ma lay jox dama koo fonk ndax képp ku ko dagg sama diggante ak yow duut nu am connexion man ak yow mooy man xadamaha fa xada dama diin ku ko màbb rek màbb nga diine li ma lay jox dafa rëy ci man lool mooy julli julli moomu nag laa ak sarti julli ndax kat baatu waylun lil musallina gi alxuraan wax dafay tekki ni am na ñu nekk nit mën na nekk ci jàkka di sujjóot ba noppi jël sa jë dëpp ko ci waaw julli nag yombut de ne ci jàkka laa jël sa jë dëpp ko ci sawara te doo ci rendre compte lu tax waylun lil musallin ñan la alladina hum an salatihim saahuun mooy alladina hum yuraauuna wa yamnaauuna mooy ñi nga xam ni dañuy jéem a trahir yàlla mais julliwunu dafa am lu ñuy régler waaye julliwunu looloo waral nit ñëw ci jàkka bokk ci sàpp sa njëkk ñépp rukkoo naan subhaana rabbi subhaana rabbi subhaana rabbi al-azim di bihamdihi yow nga daal nit ñu xeet ci biir rukkoo boobu ni ruseet sa paaka ni ko dabb benn saxaaba muy muy Omar ibnul Xataab mu yegg suuf génnaati koo koy waylun lil musallin xam ngeen ne alladina hum moo tax alquran ni yàlla ngi tëkku ñi naan dañuy julli te fekk na duñ ay jullikat ci mën naa fekkoon lañ bokk te loolu daa mat di bàyyi xel julli lu jafe la julli lu jafe yonent saa bokk na ci kàddu yu mu jox bi muy génn bi muy dellu ci boromam alhamdulilahi xaw tuuti kon ma man julli bari na ci mbooloo bi ñoo xam ne boo leen doon laaj lan mooy faraidu salaati du la ko wax waxuma la sunna yi nag wala mustahabaat yi te ku dee ñu jullee la de kon ku bëgg ñu jullee la de julli dee leen julli ñu julli war ab jullit daa war di julli ci ñu julli war ab murit nag bu taxawee di soññee ci julli di insisté dana dana jaaxal ñi nga xam ni danañ xalaat ni waa kon ñi nga xam ni dañoo nekk ci yoon wi nag te duñ julli <laughs> aw góor alhamdulilah nga ni waa kër Cheikh Ibra aha kay waa kër Cheikh Ibra dàq julli ñépp nañu jullee ngeen xam waaw xam nga yéen da ngeen di sëlmal Cheikh moom keroog bi mu kàbbare Sëñ ba léegi sëlmal ñun amuñu kattanu ñàkk sëlmal ñu ngi sëlmal foog ñuy juti ndax mëtuñu fa mu nekk kenn nekku fa misaal mi joxe mooy dafa am benn taalibab Cheikh Ibra noonu laa ko mën a misaal rek ñuy julli mu ñëw ci xoromu jërëjëf ñuy julli mu ñëw ci xoromu jàkk ji tëdd di nelaw booba day jàngale ne suñ borom ne Seydina Jibril demal nga xoolal ma ci àddina waaju sàggan nga ñëw wax ma ko Jibril nit cëpp ci jàkka ji fekk benn waay buy nelaw ci xorom bi ñuy julli jàkka ne waaw Jibril buy ñëw nit lay nekk mu kuntaaba ko ni ko saa yow yaa ngi nelaw ñu ngi julli mu jóg yëkkati bopp bi xool ko tëddaat jibril fàddaat ko ni ko yow sëñ bi jàkk-jàngi julli ngay nelaw waa ji tëddaat jibril ku dabaat ko mu jóg toog ni ko gis nga ba ma bàyyiwul danaa dugg jàkka ji ni leen Seydina Jibril ñëwoon na fi kooku mooy kan hmm? loolu daa mat di bàyyi xel yàlla dafa bind doomu aadama yi ba noppi wóotale leen joxe ay ndigalam ak sañ-sañam ba noppi wóotale leen teew ko doon yàlla moo tax bu ma leen di leeral dimension bi nekk ci julli ak faratay julli ak njariñal julli yàlla am na jàmm bu ne nag <laughs> yàlla am na jàmm bu nekk te loolu Sëñ Tuubaa xamoon na ko def moo taxoon mu maandu ci ay mbiram loolu Serigne Saliou mi doonoon xalifa jamono maanaam zahibu samaan ñu ko tudde sa borom jamono mu xam lépp xamoon na ko de benn bis daa toog ci njuwaan gi ba yàgg am ci donga yi ñu toog fële ñuy julli sëñ bi ni bërit waaxu bu jub leen da ne julli jiwul kenn ci ñoom ni ko ñun ay Baay Faal la mu ni gulbat ni leen ak man mii pare ca wax ca kon Cheikh Ibra moom la neen la te pour nga dugal ko ci bopp du comprendre du yomb kooku moom beneen mbir la yàlla defal tawféex rek ñoo koy xam xam ne xam nañ ko waaye yéen ñi nga xam ni dangeen ngeen a war a julli dee leen julli tey sàmmanteeg sartu julli ndax loolu mooy tax ngeen am ngëneelal julli ndax jullikat lu foor la néew ko kaay ma jox la nit ñi néew ko kaay jox la nit ñi woore néew ko ma jox la da ko ne kaay ma jox la julli kon loolu lu mat di bàyyi xel yàlla nañu doon ay jullit yu dëggu tey dëggal yàlla nañ doon itam ay murit tey murit géyit yàlla nañ ca doon ay murit saadex yooyu kàddu laa ne woon naa ko jottali ci kanama presse bi man nag foofu laa toll ci jamono li li li li jamono tal taluma ko li leen boole ak man sëriñ Touba la Serigne Touba yàlla la ma la mooy yàlla de maanaam yàlla kese la kon fokk ngay tibbe ci sëriñ bi rek di leen jox loolu moo loolu mooy la la li ma leen di leeral la des mooy rek di ñaan jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj jàmm fu ko yàlla mën a roccee rek ak nu nu borom bi mën a régler situation yi jàmm rek ñu ngi ko koy ñaan ci barke guddi mu Mouhamadul Fadel gii xanaa ñaan jàmm ayu boo ñaanee jàmm ñun la waroo ñaan jàmm ku bëggul jàmm boo bëggee musiba rek nitu sawara nit ku baax ku ne day bëgg jàmm yàlla nag boo ko ne damaa bëgg jàmm yàlla mooy xam na muy def ba indil la jàmm kere bi mu il faut nag nga taxaw ngir jàmm am mu ne ko nu muy dem mu ne ko demal Badar ku dee ci ñoom dem sawara ku dee ci yow def àjjana wax jamaat moom noonu la seere wat jàmmam waaye sëriñ tubaa ni mu seeree jàmbam moom mooy ku ko tooñ mu baal la ba yëgg ci afawtu anil aada yi turran baal naa ñëpp moom fexe na ba ñépp am jàmm taxaddamut moom na ba ñëpp am jàmm taxaddamut principe boobu mu doon demee nag ñun murit yi foofu ñu war a nekk ku sëb sëriñ xeex ba daanta demul bënnut cin fuqul paaka dëmut ah, booy woote jàmm war ko bàyyi xel loolu moo mat di bàyyi xel ñaan leen jàmm rek jàmm ci la lépp xaj ñaan leen jàmm rek jàmm lépp a ci jàmm situation yëpp ñu ngi loxoy sama borom yàlla lu mu bëgg a régler dina ko régler te dara du xew ñu yéen ñaan leen jàmm rek tey yéen a jàmm ñaan leen jàmm tey yéen a jàmm tey wax jàmm tey def jàmm tey jëf jàmm ndax ku yéene jàmm day doo ñàkk jàmm mukk loolu maa ngi leen koy sant di leen ko digal yàlla na yàlla defal leen nag jàmm maa ngi ñaan ci barke borom guddi gu tedd gii di Cheikh Mouhamadul Fadal maa ngi posté samay kàddu ci Serigne Sadio bu jot lil ma ko yàlla na ñépp am jàmm yàlla na ñépp am jàmm réew mi na ñépp am jàmm réew mi na ñépp am jàmm réew mi na ñépp am jàmm waaye waaye waaye ki sax jàmm la bëgg nit lu ko naqari rek jàmm lay wut yàlla na la yàlla jox jàmm jox ñëpp jàmm bañ a teg kenn jafe-jafe yàlla Sénégal naat ñëpp amee xéewal suñu borom teral na leen teral na leen ci saay teral na leen ci baati ay waay ay waay nitu yàlla ku toll ni Cheikh xew Serigne Touba yàlla dindi ko Sénégal boroom xam-xam bu toll ni Alaaji Malick amul furul Sénégal ak li fi nekk ci ay wàlli suñu boroom yemut ci loolu de ni leen dinaa leen jox ay garab ba ngeen doyal ay garab la ci nekk lépp façon garab bu nekk ngi biir Sénégal àll bi naat yëmu ca mu ne dinaa leen may jant ñu bari amuñu ko ñu bari saksu ci cat la ñuy nekk ak jant lim mën a maye bu ngeen ko saytoo sax du ngeen am du ngeen fay facture courant lu cher yëmu ca mu may leen nature bu baax yëmu ca mu may leen sax yéen far seen seen réew sax far géej a ko wër nag far nag ndox moo ko wër ndox sax moo ko wër far yëmu ca mu may leen suuf yëmu ci mu may leen or yëmu ci mu may leen jamaa yëmu ca mu dem beeg léegi xaaral sax ma génneel leen pétrole far ay waay teraanga ju nekk ngi Sénégal ngeen boole ko am ñu tedd ñoo xam ne ku leen xalaat rek am jàmm lu tax wër am jàmm lu tax kon du ngeen am jàmm il faut ngeen am jàmm fokk ngeen am jàmm Serigne Touba mënu fee ne di jàmm Seydi El nekk fi di jàmm walliwu yàlla yi nekk fi di jàmm dëkk bi naat ci jàmm kenn du leen xañ jàmm yéen kenn mu leen a tee am jàmm ah, da di am jàmm <laughs> fokk ngeen am jàmm la sëñ Fall waxoon de ci benn politicien bu ko bëggoon a xañ jàmm fu mu toll du wax sëñ Fallu Fallu lii Fallu laa daa waaxu ba ca Mbàkke mu toog ci ab fotom sol yére bu ñuul kukk jàkkaarloog penk bi jant bi dem ba ni ba ni xamuus mu ni jant meng diw meng ndax ma am jàmm <laughs> loolu jugu fi di bu ko jàpp ne jug nga fi rek xamoo li xew yéen kenn du leen xañ jàmm man maa ni ko wax kenn du leen xañ jàmm jërul tiit jërul ragal jërul dara fokk ngeen am jàmm da am jàmm de kenn du dee ñëppay dund waaw la Sëñ Saali waxoon ba sëñ Abdul Ahad ne Touba gi sama bakkan bii laa ci gar sëriñ Saliou ne sama bakkan bii dama koy jàmmal sama borom ku fi def lu doon seen bakkan laa ci gar dama ne benn bakkan du dem da ngeen di dund am jàmm li ngeen bëgg ngeen am ko sëriñ Touba not na lépp pët pët yàqul neex yéen yéen ngi jël pee bëgg xëccoon ndaat de yéen a ñàkk fay ndax senegal da ngeen a jël paie ba dem di xëccoo ci ndànk loolu ku baax du ko def jël paie mooy li ma fi lépp yàlla defal leen ngeen dara fook ngeen am jàmm man maa ko wax jàmm day am kenn du leen ko xañ te ku leen bëgg a jàmm di ngeen xam ne Sénégal jàmm rek a fi xaj kooka danaan ngeen am jàmm loolu kay maa ko wax ndax jàmm mooy war a am ku leen bëgg a xañ jàmm ubbi leen seen bët di xool mes jàmm kon na di am fii jàmm rek a fi am du dëgg te ku ma déggati nga ni Sénégal dana tàkk yow da nga tàkk yow barke borom Touba réew mu Serigne Touba nekk sedd gu am jàmm kenn mënu koo taal jàmm rek am fokk ngeen am jàmm fokk ñu am jàmm mais fokk ñu may nu jàmm loolu laa bëgg nag maa ngi rafet njort ci ni Serigne Saliou dana nu ko defal man sama leader ñu ngi tudd ak Cheikh Saliou Mbacké kookoy sama leader du kaneen kooku rek la du kaneen loolu foofu rek laa ci yem ndax man foofu rek laa toll yàlla na yàlla doon leen sutura te doon leen jàmm